di 3 euh, novembre 2020 euh, fii ci Feeling Dakar mbokk internet yi li gën a fës ci xibaar yi rek bokk na ci ki nga xamante ne ni moom moo di euh, Fama Thioune ak divorce am boobule. wax tamit ci ki nga xamante ni moo di ex petit ami bu Sidi Diop nga xamante ni daal dina am doom. dinañ wax tamit ci li nga xamante ni moo di euh, nomination bu Idrissa Seck ak coow liko ko wër dinañ wax tamit ci euh, Malick Gakou ak Bougane Gueye Dany euh, dinañ ko jeexale ak ki nga xamante ne ni moom moo di international sénégalais boobule di Babacar Xuma nga xamante ni daal dina takk jabar bokk internet yi lii moo gën a fës ci xibaar yi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di yaatal gi del déglu del xool Feeling Dakar information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. mbokk internet yi ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme niñ leen ko waxee woon ca boppu xibaar yi rek dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni moom moo di coowal Idrissa Seck mi nga xamante ni dafa daldi di rejoindre Macky Sall mu ngi wéy ba tey. ba tax na nag moom Idrissa euh, sénégalais yi nag ku nekk mu ngi koy euh, yàq lu nekk ci la nga xamante ni moo di post bi nga xamante ni daal dina koy euh, nangu waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Yérim Seck moom nag daal dina ci addu ba na ci li nga xamante ni moom moo ñeel chef de l'opposition rek moom Cheikh Yérim Seck daal dina koy nommé ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax nag eh, bu ñu sukkandikoo ci situation la eh, moom sax Cheikh Yérim Seck muy doon wax ay jamono rek li nga xamante ni moo di deal bi nga xamante ni Macky Sall ak Idrissa Seck ñu ko doon def waaye à l'époque a kenn gëmu ko woon waaye tey nag lépp leer na si bopp nit ñi moom nag Cheikh Yérim Seck loolu la daal di xamle ba noppi mu daal di ci dolli rek ni li nga xamante ni moom moo ci am solo rek moom moo di au moins euh, li nga xamante ni moo di mbir yi daal dina leer euh, tey ba ba noppi daal di nañu euh, distribué waat li nga xam te ni moom moo di euh, carte yi Idy nag daal na euh, arrêté dekk ci opposition bi depuis lendemain bu élection présidentielle yu 2019 bi loolu nag leer na nañ ndax depuis élection yi rek jàll kenn déggutu ko woon muy wax dara loolu nag moom moo waral mu daal di tabb ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko comme chef de l'opposition ndax moom kese moom moo fi nekk di opposé wu. dañuy wax nag ci élection yi amoon ca Côte d'Ivoire nga xamante ni coow li daal di woon na fay bëri lool mu tàngoon lool. gannaaw ba nga xamante ni moom Alassane Ouattara dafa daal di posé woon pour troisième mandat rek ba tax na sax. loolu juróon fa coow lu rëy waaye nag ki nga xamante ni moo di président Alassane Ouattara rek moom daan nañ koy euh, tabaat président bu euh, Côte d'Ivoire bu bii nag moom moo nekk euh, troisième mandat wam yoo xamante ni dafa daal di tegloo ba tax na nag loolu nekkul surprise benn yoon ba tax na bu ñu sukkandikoo ci résultat globaux yi nga xamante ni daal nañ koy publier ci bu tey ba tax na sax ci commission électorale indépendante bi moom moo ko daal euh, publier ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni nii daal di nañ koy euh, fësal rek moom moo di cinquante trois virgule neuf pour cent ci électeurs yi rek ñoom euh, ñi nga xamante ni dañoo daal di dem ci urne yi rek ngir votel ki nga xamante ni moo di candidat bu RHDP. ki nga xamante ni nag moom moo di Alassane Ouattara moom nag mu ngi euh, génnee ak benn score bu mag bu nga xamante ni mu ngi toll ci 94 euh, virgule 27 pour cent ci li nga xamante ni moom moo di suffrage euh, valablement exprimé. ba tey eh, dañuy eh, desandi ak ki nga xam te ni moom moo di Idrissa Seck ak tabu bi nga xam te nii daan nañ ko koy eh, def ci li nga xam te ni moo di bopp conseil économique social et environnemental bi nga xam te ni nii Macky Sall daal dina ko koy def ba tax na sax ki nga xam te ni moo di gay Gueye Dany nga xam te nii moom moo daal di nekk leader bu gëm sa bopp moom nag. daal na euh, quitté li nga xam ni moom moo di euh, coalition euh, Idy 2019 waaye nag moom Bougane Gueye Dany moom kese nekkul ni que moom moo quitté parti boobule ba tax na sax ki nga xamante ni moo di maali Gakou nag moom tamit dina def noonu ndax nag bu ñoo sukkandikoo ci directeur des structures bu grand parti li nga xamante ni moo di formation politique bu Malick Gakou rek dina quitter li nga xamante ni moo di coalition Idy 2019 ci li nga xamante ne ni moo di ay bés yu ñu dëgmal ba tax na sax député bi di Malick Gueye moom daal dina déclaré euh, ni que grand parti nag euh, du euh, toog ak li nga xamante ne moo di Idrissa Seck dina daal di génn nag ci li nga xamante ne ni moom moo di coalition Idrissa boobu le ci ay fan yu néew. ñu wax nag ci ki nga xamante ni moo di Fama Thioune moom ak jëkkëram jooju di Matar Seck batax na nag ki nga xamante ni moo di Senenews daal dina ñëwaat ci li nga xamante ne ni moom moo di relation boobu boobule ak divorce bi gannaaw ba nga xamante ni ay jamono dañ doon wax rek ni que dañ doon dañoo divorcé ñu koy laam laame waaye nag Senenews daal dina confirmer ni que animatrice bi di Fama Thioune daal dina divorcé ak ki nga xamante ni moo di euh, jëkkëram jooju di euh, frère Coumba Gawlo ba na sax euh, li nga xamante ne ni moom moo di seen news ba tey mu ngi informé rek ni que moom Fama Thioune dafa daal di yëg rek ni que jëkkëram dafa daal di ëmbal maîtresse am looloo waral seen coow ci noonu nag ba mu ko yëgee rek quelque temps lañ ci teg moom tamit mu daal découvrir ni moom aussi dafa daal nekk en état de grossesse ba tax na bu ñu sukkandikoo tamit ci ay source yu euh, jege couple boobule gannaaw ba nga xamante ni moom moo Fama Thioune dafa daal di supporter ay euh, défaut yu bëri ci li nga xamante ni moom moo ñeel jëkkëram muy wàllum doxaan ak li ni mel ba tax na sax li nga xamante ne ni moom moo di ëmbal bu mu ëmbal maîtresse boobu boobule moom moo gën a yokk tax ki nga xamante ni moom moo di Fama Thioune mu daal di sonn ci diggante boobule daal di divorcé ba tax na nag. ba tax na nag moom Matar yemul ci li nga xamante ni moom moo di euh, doxaan rek euh, dafa daal di mettre enceinte ki nga xamante ni moom moo di maîtresse sam boobu Fama Thioune nag dafa daal di euh, quitter domicile boobu Fama Thioune nag dafa daal di tas gannaaw ba nga xamante ni nii daf ko daal di jàpp en flagrant délit ba tax na ba tey bu ñoo sukkandikoo ci li nga xam ni moo di euh, même euh, source bi rek euh, jamono ji ñaari doomu jëkkëram joojule di Matar daal juddu mooy ki nga xamante ne ni moo di doomu Fama Thioune bi daal dina juddu waaye tamit nag ki nga xamante ni moo di maîtresse am tamit daal dina accoucher tey nag waa li ma metti ñoom nag dañoo daal di fësal rek ni ki nga xamante ni moom moo di ex petit ami bu Sidi Diop dafa daal di accoucher benn doom bu jigéen ba tax na ki nga xam ni moo di danseuse boobu di Sophia Sène moom nag nekk na yaay waaye ñoom waa lima ma métti ñoom luñ daal di xam ne rek moom moo di xale boobu nag ki nga xamante ni moo di Sidi Diop juru ko waaye keneen ci ay prétendant wam ñoom ñoo moom moo ko jur waa li ma métti nag loolu lañ daal di fësal dañuy daal di wax nag si benn carnet boo xamante ni mu ngi ñeel ki nga xamante ni moo di joueur professionnel bi di Babacar Xuma moom nag daal na takk ki nga xamante ni moom moo di Absita Kane l'international sénégalais boobu di Babacar Khouma nga xam ni jamono ji mu ngi évoluer ci benn club foofu ca Turquie ñu leen di soyte un heureux ménage